Umar Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame. voilà Umar Cissé nga nekk directeur exécutif bu association des commerçants et industriels du Sénégal depuis lundi ngeen nekk en mouvement d'humeur lan moo leen métti exactement lan mooy jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel. soxna euh, xam ne Euh, jafe-jafe yooyu nag bari na lool waaye tey li na këtt na jox na mooy port Sénégal bi ni mu mel moo mënatul a dem conteneur mënatul a dugg ak fees na dem ndax ki nga xam ne moom mooy du Dubai port moom bi nga xam ne mu signé contrat ak Sénégal nekk manutentionnaire maanaam bateau bu yegg si mu war a wàcc conteneur yi kuy jël sa conteneur mu war la ko yebal sa oto nga livré ji boo ko livré nga ñëw delloo si ko ko loolu la mënatul ndax terminal ak bi nga xam ne moom moo war a def conteneur yi moo fees dell dell dell lu ko waral mooy conteneur yi ñu euh, jël ba décoté ko delluwul nga ñëw wàcce ko ci terminal bi conteneur yi bateau yu bees yi ñëw euh, am na ci yoo xam ne sax na nañoo wàcc lu ñu nekk en rat te loolu li muy xat na ci conséquence yi pour am mooy ëpp portuaire bi ñu bëggoon suñu port autonome de Dakar doon ko dootul mën a am tey pàcc yu bëri dañuy ñëw bu taxawee ñaari fan ñett fa mënuñu wàcc dem seen yoon def nañ dem Port de Téma wala ñu dem euh, euh, Côte d'Ivoire même Mali yi dañu dem ba nga xam si ne dootuñu bëgg a xoolal transit Mali bi ñun amee dugal ci Sénégal waaye caaxaan yi tax na ba ñëpp ngi bàyyi port ñun nag Sénégalais yi euh, loolu causé ñu ay toor yu du jeex ndax am sa conteneur depuis mois mu ñëw ba mois de septembre mënoo cee jot te benn bis boo xam ne tardé nga ko ci sa conteneur jotoo ko rek mën na la coûter la waxuma laa nag ay semaine waaye li ci doy waar mooy bu fekkoon buñ la tardé la sax dañ lay wax masta waaye dañ lay tardé fal di la fayeeku ndax gis nga moom la wax ne la sax conteneur bu ñëwee moom nga ko moom moom la bi nga tënne ko loolu bis li ñuy fay ci surisari ak magasinage par année ay mille centaine de milliards la par année te dara ci nekkul dëkk naan wax sàcc la sax waaye du sàcc ndax sàcc da ngay yot borom nax ko muy nelaw nga jël ko waaye lii da la naan yot na di xool ngay jël alalam li ci métti nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy amul kenn kum réer ci autorité yi du directeur du port du ministre ko kenn parce que teg nañ ko seen table ne leen ñii ñu ngi jël ay milliards ci xaalisu sénégalais yi ndax xaalisu commerçant yi mooy xaalisu sénégalais yi te tekkuwul ci benn base depuis trois ans ñu ngi koy wax loolu mënta sotti kon lii bokk na ci problème yi waaye bokk na ci problème yi mooy ay forfait yoo xam ne ligne maritime ñu ngi koy facturer sénégalais yi loolu it nekk ay milliards année depuis trois ans ñi ngi wax ne arrêté bi defoon faux frais te frais yooyu na ko dindi ndax faux frais yooyu amul base légale amul base légitime ñetti affaire yi ñu ci topp mënta nekk ligne maritime yi da ngay ñëw fay sa bëgg a fay sa facture problème la boo fayee rek problème la nga fay bu ñu jox la facture yi mën ngaa def semaine wala ñaari semaine bi yokk ci fan nga am ci port nga fay war a am koo à délivrer mënoo ko am loolu yëpp ñu tardeel la ko fayatuñ la waaye ñu ne léegi da ngeen di fay parce que te conteneur bi ëpp na fukki fan ci biir koor bi te la tax mu ëpp fukki fan ci biir koor bi ñoom ñoo ko def waaw loolu lu muy tekki maanaam daal dama lay tooñ nga dóor ma nga tooñ ma dóor ma loolu lañ xamul lu muy tekki loolu nag nga ñëw ci transporteur bi mm-hmm. da ngay jël yóbbul ko commerçant bi mu wàcce ko nga war koo delloo si ñëw du bàyyi koor ne la amoo fu ma ko des nga yor conteneur bi tuñu tuñu ni fu nekk ci dëkk bi mën koo yor ci ñetti fan ñeenti fan yow doo te léeg-léeg ñu wax la bu fayeeku la frais détention na la sama conteneur bi lu tax livré woo ko waaye yow koo xam ne yow indil na la conteneur amoo foo ko dugal ñetti fan nga yor ko yow fayeetookul la fayeetoowul la yow nga koy fay moo tax léegi ñu dem ba mënatuñoo liggéey comme ñun buñ fayee suñu xaalis lu tax suñu conteneur génn yamul ci ñàkk génn waaye da ngay fay sax yenn frais yoo xam ne nii yow defoo ko ñu ne léegi dañ taxaw moo tax du grève sax ab taxaw la boo xam ne situation bi ko imposé mënatuñoo liggéey kenn sa xaalis di ko jox moo tax nag ñu wax ni di tàmbalee tey ak suba di alarme benn déclaration duñ ko def fois premier ministre nag nee na daf ñu rencontre mhm. bu ñu rencontre nañ ko déglu ndax nag rencontre nañu ñaari yoon ci weer ñaari weer yi paas jëloon na ay engagement joxoon na ay instruction ay ministre am dara amu ci dara nag amu ci cette fois ci dañuy mën a nekk lu concret rek wala grève bi moom du arrêté dañuy continuer parce que mënuñoo travail ci condition yi dafa mënul nekk dafa mënul sax nekk euh, voilà fan fan ngeen oui dañoo bëgg ñu population bi xam ne kii ñuy def defuñ ko pour ñun dañ ko def pour askan wi ndax xanaa nag xaalis milliards yooyu ñuy jël ci commerçant yi milliards yu sénégalais yi la ndax ñun ay commerçant lañ ay opérateur économique yoo xam ne fii lañ juddoo fii lañ yoroo fii lañ nàkk lañu wi lañ koy defal ndax kat prix yooyu frais yooyu ñu yokku day feeñ ci njëgu marchandise mi ndax mënoon nañ ñëf ci rek ne luñ ma tegal ci frais ma teg ko ci marchandise mi moo tax gis nga tey soble bu ñu yeggee xam nga looloo ko indi ndax benn commerçant ngi nii barki démb wax na ko ci kanam directeur général du port ne ko chaque mois ma fay quarante millions ci ay frais sur rek magasinage beneen jigéen mu ne six mois fay leen trente trois cent millions ci ay frais sur rek magasinage waaw ku def loolu ci marchandise loo loo loo mu def ci marchandise mi la koy teg marchandise mi après du yokk donc bokk na ci li expliqué ko yokk njëg yi waaye dafa gis marchandise te boo ko gëjee gis nag mu gën a bonati kon du loo xam ne lu yomb la ñun xam ne ne conséquence yi lu garaaw la waaye na population bi xam ne lii pour ñoom la du pour ñun association consommation bi sax ñoom ñu waroon a njëkk a jox xeex bi kon liñ ci woo Sénégalais yëpp ñu xam ne ñun euh, li ñu xeex nii pour askan wi. Omar fan ngeen ci tollu négociation ak état wu Sénégal actuellement ak situation bi nga expliqué. négociation yi depuis 22 ba léegi ñu ngi ci wala 2021 am na benn séminaire bu ñu defoon ñu defoon séminaire pacte de Saly benn pacte dañ ko tënkoon ñoom fukki poñ la ak juróom-ñett acteurs yëpp dajaloo d' accord dëppoo ci ne lii bu ñu ko defee port bi jafe-jafe yi mu nekk dañ ci jotee ba taxoon suñu yëngatu ñu doon yëngatu yëpp ñu arrêté woon ko. loolu fi may wax ak yow amul ci benn point bu def. heure bi lañ koy fay. gannaaw loolu ñaata réunion lañ ko def xaw ma nu mu toll ak waa port. ak ñi teq liggéey bi ñëpp. bi ci mujj wax naa la ko y a deux mois premier ministre la ñaari yoon daje nañ ak moom ba su may wax ak yow li tubaab bi wax de mal en lay lay doon day jógee ci bon jëm ci gën a bon. Hmm. moom moo jur lii moo tax fi nekk nii sës nañ li wolof di wax wasin baa dem tool moo fi sës donc day wasin léegi rek wala mu dem ci tool yi la passe au centre maanaam day ñu continué taxaw toog parce que kon daal tant que autorité yi teguñu hmm. ma ne tant que autorité yi wuñ problème bi du ngeen dakkal seen grève bi. non non non non parce que mënuñu continuer liggéey ci façon bi mënuñu jël suñu grève bi conséquence yi muy jur exactement. wala classe yi wax naa la ko. Hmm. mooy ne euh, daara daara yi ni martinis ni dootoo ko gis. waaye conséquence bi mooy am na ci prix yokk yoo xam ne nii dara war ko dudul tey ñu tey xam ne tegul fenn ñu koy bi euh, conséquence yi mooy toujours tardé bi ñuy tardeel ndax léegi lépp ñu tardeel boo xam ne nii maanaam xam nga liggéey pour nga mën ko soo amul chance rek sax fa nga waaw ndax dal na si ay ay ñu bëri xam nga ki nga xam ne day jël heure bu dee mu fay quarante millions de surefere magasin xam nga loolu loolu la ñu mën a ko supporté Sénégal amul pouvoir pouvoir d'achat boobu loo ko teg teg teg léegi am problème léegi da nga jaay jaay bàyyi sa xaalis kon conséquences yi bëri li benn ci ñun ñu ngi nii toog liggéey am ay sacrifice yu ñuy xaar yoo xam ne ni fin du mois foog nga def ko kon conséquences yi day daal si ñun lay njëkkee parce que avant tout ay consommateurs lañ ay employeurs kon conséquences yi bëri na waaye nag euh, boo demee ba xamatoo fi nga jëm da ngay dellu fi nga jógee woon te it nag genn wàllu kasaara gën kasaara ndax continue di liggéey moom kasaara la <laughs> toog genn wàllu kasaara la moo tax ñu jàpp ñu jël toog léegi euh, pour yow Omar euh, Cissé lan moo tax état bi mënul fexe ba réguler euh, marché bi jëloo na fi sax ay mesures pour wàññi prix yi mais gis nañ ni boobu ba léegi dara sottiwul au contraire affaire yi dafa gën a jaxasoo lan moo tax état bi mënul réguler la marché pour yow. waaw loolu moom nañ ko laaj état ñun li ñu xam mooy li ñuy posé bokk na ci li ñu gën a naqari mooy lii nga xam ne tey moo ñu dal compagnie maritime yi yóbbee ñu ko ak Dubai Port. maanaam de A à Z lañ ko bind ak des documents ak ay preuves yu palpable teg ko mais lii ñuy def nii tax na ba prix njëg yi mënta yomb lii ñuy def nii tax na xaalis bu bëree bëri ñu ngi ko yóbbu Sénégal bi ay milliards lii ñuy def nii tax na commerçant yu bëri fayit nañ waaye ànd ak loolu yëpp amul dara dara dara loo xam ne nii fekk na ci compagnie yooyu ak Dubai Port loolu man moom ma gën a jaaxal man mu mel ni ñoom dañoo nekk buur wala. xaw ma bu a la ak qualification aw ma ko te amul ci kenn ci autorité yi ku la man a wax ne lii xew ni nekkuñu au courant xam nga soxna ci loo xam ne depuis ñetti at yéen a ngi waxtaan. Hmm. on a jamais résolu les les problèmes on les déclenche juste loolu nag ak ñu ne ba pare yegg si ñu yegg si loolu moom état la ñu laaj man lu xew wax soow lu xew pour ñiy taxaw ci Sénégalais ay contrat mënuñ ko def te kenn du leen wax dara c'est la grande question ko Mhm. Omar dernière question rek euh, naka ngeen gisee euh, seen ministre euh, tutelle Abdou Karim Fofana. waaw. wax dëgg yàlla jàpp nañu taxawaay bi waroon taxaw taxaw ñu ndax boo jiitee départ lu mel ni commerce ñun ñii ñu bokk ci ñu ci ministère de tutelle yu mel nii am woo acteurs yi toog ndeg liggéey ak ñoom xam lan moo seen i jafe-jafe. nga jéem a taxaw ci état bi ci gouvernement bi jéem a lijjanti seen i jafe-jafe wax dëgg boo ne taxawu nga leen euh, taxawu amul bu jotaay amee lu ci bëri ñoo koy sàkku jàpp mu ne noonu la waroon demee xam nga gérer sensibiliser gérer c'est prévenir doo bàyyi ba yëpp na këtt na joon ñun nag amuñoo kenn problème personnellement li ñu bëgg mooy suñu réew mi dox li ñu bëgg mooy une gestion participative inclusive li ñu bokk ñun ñëpp ko war a bokk péncu pour mu mën a baax mën a jëm kanam waaye kilifa doo tànkam doo xaar ku la woo rek nga soog a wax waaye del saytu del xerewlu del bàyyi xel bu dara xewu sax léeg-léeg nga woo leen ah gën naa leen dékkite lu xew bu ngeen toll lan mooy seen i jafe-jafe lan laa mën a def pour yéen bu ngeen di xaar ainsi de waaye léeg-léeg nga waxtaan ceeg nit mu ne membre ci gouvernement bi mu ne lii yëguma ko wala mu lay laaj lu xew xanaa kon waxtaane wuñ ko fa nga xam na ñoom buñ toogee fa la ñu war a waxtaanee yëf yi Sénégal yi muy euh, conseil des ministres wala conseil interministériel donc y problème. kon Omar Cissé Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf association ñu leen di may fàttali Omar Cissé yow yaay directeur exécutif bu association des commerçants et des industriels du Sénégal ñu lay remercier en tout cas bu baax a baax. merci beaucoup ñu leen